premier ak ñu teg en deuxième tout ça c'est des trucs mënuma ci parce que c'est les secrets de l'enquête dinañ ko gis après donc il s'était prononcé sur cette question et parlant de mon frère qui dit que à cause de l'UPEC des activistes sont venus ici rencontrer nos frères ça c'est vrai est-ce que c'est pratique mais c'est vrai regardez ce qui s'est passé en Guinée au Mali si aujourd'hui comme le Sénégal peut se targuer d'avoir une jeunesse consciente, une jeunesse prête à donner sa vie, une, une de manière qui est un contre-pouvoir. Mais ça, c'est une aubaine pour le Sénégal. C'est Macky Sall qui devrait magnifier la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, les Européens viennent de partout. Même pas une semaine, on a reçu Podemos de l'Espagne. Ils sont venus nous rencontrer pour prendre de l'expérience. Occupy Wall Street, ils ne veulent pas l'admettre, mais c'est copié sur les mouvements sociaux africains. Tout ce qui se passe, les gilets jaunes, mais c'est du c'est du frappe, c'est du Nutudug, c'est du, c'est du, du Lank. Le monde est en train de magnifier ça, cette jeunesse africaine. Mais, mais non, ils veulent étouffer cette jeunesse africaine, mais c'est peine perdue parce que il ne sera pas le premier, il n'est pas le premier, il sera pas le dernier. De toute façon, tout ce qui les intéresse, c'est des débats de, de, voilà quoi. En tout cas, on, est, là. Dara duñu dara duñu frégé dara frégé wuñu dara l'a dit très tôt Y dit on va libérer ce leadership qui existe partout c'est un état d'esprit c'est pourquoi que Simon aujourd'hui est qu'il faut qu'on passe la nuit à Rebeuss je suis là demain si je ne suis pas là Aliou Sané est là là Astou est là quelqu'un d'autre est là Et c'est Donc, ce n'est pas demain la veille. C'est pas euh, on passe la parole aux invités. ku am kàddu booy sànni rek. bi muy li wax rek ci li tax ñu teew. mois de février mars soriwul. gën saa gudd juróom weer la. te bi coow li jibee bokk ci njëkk ñëw taxaw ñëw sama kër seet si ma délégation Simon ngi ci woon Fou Malade ngi ci woon Aliou woon euh, ci woon ñëw taxaw yoon newul ci politique nous ne sommes pas des acteurs engagé wuñu ci cadre politique wala électoralement waaye suñuy principe lii suñu taxawaay mooy fépp fu ñu bëgg a faagagalee démocratie dina fa taxaw ñu ñëw taxaw taxawaay bu rafet ci loolu ay contact ak waaye du contact bu poussé lu xew rek ñu ne non c'est nekk seen gannaaw gis nga ñun ci yaanaamaar nga koy yaakaare soo duggul ci àll bi dem def un politique sur la base d'un politique ba su élection suñ koon jotee bu ñuy wàññi di nga xam ni euh, amoo dara kon la ñu doon dajale ak yaanaamaar c'était des combats de principe ci suñu ressources naturelles ci euh, prédation foncière bi ak yeneen yeneen yoo xam ne sénégalais bu ne mun na ko bokk ak beneen sénégalais indépendamment de votre forme d'organisation waaye damay jël exemple ci kenn def seede fii muy caat wala muy kilifa jusqu'au mois de février def naa caat ñuy wootante de temps en temps ana sama livre gi demee noonu mais bi événement yi amee léegi yaanaam le lendemain dafa ñëwaat sama kër ñëw toog ñu waxtaan bu yàgg mun naa ne depuis le neuf am ne kilifa ñëwul sama kër ñaari sama kër ñëw toog apporter ma son soutien waxtaan ak man Serigne Bassirou Gueye bii di ñëwee mu ne ko yéen li tax ngeen yi jàppale soom ko que yéen ñëpp ngeen ci génnee problème li may que nit ñi foo ñu xam link bi d'ailleurs Sonko va aller en prison il va pourrir en prison ne ko yor naa nii certificat médical bi yor nañ ko boobu baaxul mu ne ko boobu nekk ci PV gendarmerie nga ne bu baaxul yow am nga beneen mu ne ko c'est pas parce qu'il y a mais quelques cas yi dañ koo xeeb li tax yàlla wax ci alxuraan ne ku rey benn nit dafa mel ni rey nga àdduna yëpp koo tëj ci loo xam ne du yoon dafa mel ni tëj nga àdduna bi yëpp parce que la liberté est yàlla dafa mooñaale nit ak liberté muy dem di ñëw di régler ay problème nga jël nit ci lu dul yoon féetale caabi ci gannaaw ba pare dem lekk sa ceebu jën naan sa ataaya te toog di foog say doom moom dootul gis doo ay doomam ba pare nga ne loolu dañ ko banaliser ces injustices là moo tas réew bu mu sa tas te dina tas Sénégal suñ ci jógul parce que kenn du ko nangu je réitère ce que j'ai toujours dit le droit à la résistance face à l'oppression su Macky Sall jàppee ni voté ay loi yu ñàkk fayda ci terroriste dem sur suréquipé ay gendarmerie mooy problème bi na dem laaj la un peuple qui ne qui dit non kenn mënu ko téye ñun nag jàppoon nañ ni les événements de mars dina ko delloo xelam tuuti mais lii wane na ko entreprise systématique de ciblage et de liquidation de gens simplement parce qu'ils ont dit non et vite li tax ñu bàyyi escroquerie qui a escroqué qui une affaire plainte nga ne escroquerie corruption mais dem na ni article 159 code pénal pour corruption am il faut mu am un agent public échange mu def wala mu bañ a def ana agent leur leur leur du terme comme dit Barthélémy Dias c'est du foutage mais kan lañu corrompre dans cette affaire là parce que pour fabriquer des preuves pour que ñiy dem tëddi kaso mais ñooñu ay borom kër lañu dañoo yor doom yor jabar yoon ay ay activité yow ngi leen tëj gënoo leen Macky Sall mi leen tëj su jugee pare dina dem toog ak njabootam et on nous balaa may dee ñu ne Sénégal réewu jàmm réewu jàmm day fekk tous les acteurs dox jàmm te yow mu ñu jox nguur pour nga améliorer le sort des ci kaw nii ma daaneel nag ci wax ni nous serons à côté de Y'en a marre dafa am combat yoo xam ne bu jotee bu ñu nangu fumisterie yi waaye c'est politique c'est pas man bi ma ci tollee ñi ñëw duñu politicien mais suñu taxawul woon heure bi du ma toog fii di wax dafa am fu mbir di toll man je ne pas là en tant que politique je suis là parce que mes frères kilifa musuma wooye Sonko ñancoo la may wooye je suis là parce que dañoo jël justice instrumentaliser ko une fois de plus pour liquider des gens yoo xam ne su ma leen xamuloon sax war naa taxa wax ma laa nag bu dee ñu ma xam la et vous aurez tout notre soutien nous mènerons ce combat ensemble su laajee la rue dinañ dem dans la rue maa ñu ngi ciy xeex boobu ba léegi loolu laa bëggoon daanelee di masawu njaaramaar di masawu famille kilifa ay waajuram ay mbokkam soxnaam ay doomam ñëpp ñu ngi leen di masawu ne leen nag ils nous auront ils nous auront tous à côté de nous di masawu kilifa euh, Simon ak waa mbokkam yëpp barki dem rek jokkoon ak soxnaam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 dafa am ay éléments yoo xam ne dafa wane un complot manifeste du ma ci sori vidéo bi nu mu génnee fekk waa mu ngi kaso kat moo ko génnee gendarmerie wala administration pénitentiaire wala avocat bi giseek euh, Thierry Mamadou Diallo le timing waa Y'en wax nañ ci lan moo tax ñu xaar quarante cinq jours en réalité dafa am beneen affaire mooy lu waa ji doon wax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 dóor ay sénégalais yeneen sénégalais jël jaasi pour fayu procureur autosaisirul jusqu'à présent les nervis sont là ñu ngi daw libres comme l'air leurs photos ont été diffusées partout ñu ne léegi dossier bi moo constitué un trouble à l'ordre public tel que il faut que ñu def lii autre élément constitutif du complot procureur dafa ne enquête et arrestation loolu fu mu am waxul enquête après ñu xaar les résultats de l' enquête pour arrestation dafa ne eh ñaar laa leen sant na ngeen commencé enquête ba pare na leen arrêté loolu ku mu doyul euh, dara dootu la doy trafic de migrants migrant day am S du ngeen mës a lire trafic de migrants te migrant doo am S lan mooy migrant migrant dafa am définition naam du kàddu wolof kàddu nasaraan la migrant dafa am tour ak sant lan mooy tur ak sant migrant am ne mu am jafe-jafe économique ci beneen réew ngir am fa xaalis pour wàññi coono wo loolu mooy migrant ndax dégg ngeen ci vidéo ñaari vidéo yu lëmbee Sénégal ci dossier bi Thier ne moom day migré kan moo am impression que Thier c'est un migrant wala il veut il aspire à être migrant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 mois de mai ba tey jii tous amul. c'est sérieux là ku mu leerul ci ne lii ku leer dañoo waxoon du dëgg du yoon Sall du dëgg du yoon ci Ousmane Sonko du dëgg du yoon et ils ont commencé du ma lim Bougazelli effectivement Bougazelli est libre comme l'air ngeen foog ne dëgg la drogue eh na mu waxante dëgg waa Yanama ay jàmbaar lañu. ils ont donné douze. Macky Sall APR ak Benno Bokk Yaakaar def communiqué quand réunion tous les ci toje alalu réew mi ngeen un communiqué de l'APR muy a donné une leçon de bonne gouvernance à Macky Sall, à l'APR et à Benno Bokeyakar. Quand Kaloui, nous les nous les décorer. Il faut 100, 1000, 1500, 1 million de Yanamar, de Kubi, continent Bidjonkan. une leçon de bonne gouvernance à tous les militants de la Mbaye Brod ak ña Postier Thérèse Faye ak ñoom seen lan Cheikh ñi kan ngeen gis dans cette très longue liste kenn ku démissionné mais je veux à l'aise ci di gars yi loolu dañ ko war a dañ ko war jàngale dans des facultés de sciences politiques politique de la graine. Politiciens de Benno Bokk Yakaar prenez-en de la graine politiciens de l'opposition prenez-en de la graine lii mooy wax ci lii moo ñu fi indi. voici le sens de notre présence ici. Maintenant que vous me permettrez de terminer rapidement. Parce que notre présence ici, ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes tous en sursis dans ce pays. Macky Mbengue. Suñu paree ak gaañi. ci man la ñu bëgg ñëw lu ñu namm ci man mooy lu ma namm ci dëkk bi ci biir dëkk bi mooy Dakar fii laa juddoo fii laa yaroo moom la nekk dama ne am yàllay buur ñàkk yàllay buur wante ñàkkuñu jom Macky Sall dama ne au mois de mars treize sénégalais laa wax treize sénégalais ñàkk nañ seen bakkan fii amu ci benn neex bi amu ci kenn ku ci ñàkk bakkan gànnaay gisul dara procureur nee na déggul dara lu jotoon xew ci mairie bi yaa dix ans de cela nga ne da ngeen di ko tëggaat maa ngi leen di xaar di leen di nag di leen di sant et tout mon soutien au mouvement Y a marre salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp ñu fi teew maa ngi nuyu maa ngi nuyu invité yi fi nekk ñëpp di nuyu waa Y'en di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ku ci nekk di la jox sa wàccuwaay li wax euh, li ñu fi wax lépp aussi dégg nañ ko te lépp dëgg la te xam nañ ko président Ousmane Sonko li mu wax Barthélémy Dias lu mu wax docteur Ba balaa may sori ci loolu nag remercier waa Y'en di leen encourager parce que bu Afrique yépp amoon jeunesse bu jug taxaw comme ni waa Y'en a marre jugee taxaw Afrique jugee te jot ngeen a gis ñenn ñu jàng ci waa Y'en a marre ba créer seen mouvement Feneen Afrique am résultat amul beneen magie amul leneen am ay jeunes yu jël seen cerveau réfléchir te loolu la waa Y'en a marre def ci loolu lu ñu jeunesse débile une jeunesse qui que porter des chaussures wane ay daalam ci àdduna bi pendant ce temps yeneen dëkk yi ñu ngi jël seen seen ndaw yi di leen di leen jàngal xam-xam école yi gën a mag ñuy jàng buñ jàngee ba pare fan la ñuy ñëw Afrique wàllu pétrole la ñu ñun ñoo xam ne lañ koy defee ñun nangu waat ko suñuy loxo lu mu mënta doon ñu ñëw ne leen ñun ñoo am xam-xam. njiit yoo xam ne ñoo tardeel Afrique tardeel jeunesse su Afrique ñun te loo waroon dund paradis sur terre parce que loolu la yàlla nam si ñun amul benn continent bu yàlla may li mu may Afrique kan moo ñu tee def xam ngeen ko mooy suñu njiit yi ce sont nos traîtres ce sont des lâches képp ko si toog raykatu nit nga li ngay njëkk a def booy jël justice bi. kan moo nekkoon ci ginnaaw ban avocat moo fi nekkoon kan ak kan ak kan y a pas lieu de parler les gens qui daaw moom nii waxee nee waxee avocat bi ne non yaa bind plainte bi kenn na ko bul ma ko ji ñaa ko bind ay jiitu même ay fait lépp fi ñu fekk lépp bëgg ko neex fal ku ko neex procureur am nekk fi ana Bougazelli ana Bougazelli trafiquant de faux billets ñun suñu député moo tax ñu fal leen lan moo tax ñu fal suñu député trafiquant de faux suñu kaw faux billets yooyu fan lay tuuruwaat ci ñun baadoole yi lay tuuruwaat bu la ci jàppee yow ci kaso nga jëm yaay ci kaso la jëm moom ci kaw la nekk am na am na médecin yeeg ak ay kàcc yi benn dëgg moo fi am par par loolu ñu nekk di def ay kàcc leen mais la vérité elle est bi toogee na le parce que bëgg ak jour bi mu la ñuy woo diw kon mënatuñu wax indépendance ku nekk ci ginnaaw ne tel jour la bëgg personne parce que tel jour day coïncider ak sama député yi ñu jàpp trafiqué lan moo tax woowu ñu leen avant lan moo tax woowu ñu leen après ñun ñëpp xool nañ dossier xool nañ vidéo yi li ci su amul trafic danañ am gàcce ñun tax trafic mooy ku génnee ay jaay et sur la vidéo gis ngeen que ni kilifa yi la n'avait même pas numéro am ambassade yeeg yooyu noonu mu ngi doon wër ay Amadou Fall ba ku ne mu woo la pour mën a dimbali benn xaritam dem xooli seen benn say ci ginnaaw ñu daal di ñëw kaso ba la nekk ca kaso ba ñu utiliser ko te da leen demoon di leen sàcc ñoom ñu jël plainte bi daal di dindi plainte bi lan moo tax toppatuñ gayeen boobu sàcc mu éliminer seen plainte pour mu defal leen la sale boulot ñu ciy dégg avocat xam ni moo ñu moom ci télé bi lay nekk di ñu traité lu ko neex di saaga Sénégal yëpp doon ay doomu raam ngeen plateau bu mu toog saaga Sénégal yi saaga gor yi ñu jël seen borom borom rasta bu tudd Mame Gor Diazaka muy saaga di saaga Aliou ñun ay tapet lañu parce que gars yi bu fekkoon que ni ñun ñu ay tapet li ñuy def ni ñu ko def Y'en a marre mi ngi Dakar mi ngi Louga mi ngi Podor mi ngi Ziguinchor mi ngi Touba mi ngi fépp ñu jàpp suñu leader yi di leen toroxal ci dëkk bi ànd ak seen ay presse ànd ak seen ay policiers ànd ak seen ay gendarme ñun ñoo ko war a bañ Aliou réew mi suñu réew la ndaw ñi yéen la ñuy déglu xam nañ que ni politiciens yi pour la plupart ce sont des des menteurs ils sont tous complices donc léegi ràññee nañu lii ñuy diaboliser Y'en a marre ça ne passe pas ndaw si ñun gën see ñàkk xel xam na que ni tout ça c'est pour liquider Y'en a marre Y'en dérange parce que Y'en a marre ñëwul jaay ngorom dafa ñëw taxawal problème tous les combats citoyens yi jar a mën a Y'en au front dóor garde à seen jabar yi seen doom yi seen yaay nelawatul ñu ne on le fait c' est prix à payer c' est sacrifice qu'on doit faire pour notre peuple tàccu leen waa Y'en a marre bu fekkee dëgg la bépp combat bu Y'en a marre mosoon a def bépp sacrifice bu Y'en a marre mosoon a def ñun peuple bi ñun ñoo leen ko war a fay saay-saay yi duma am leen bëgg ci ñoom parce que benn groupe kasa leen valeur bu waay voté ñu fexe ba booy yi duñ kan mooy téléphone bi wala maire bi taxaw fële jiital dexam kooku délinquant bi wala booy bu ndaw bi nga xam c'est un adolescent ñu jàpp tëj ci kaso ba bàyyi ko fa ay année nga am ab maire boo waroon donné bon exemple billaahi Serigne Touba maam El

pour lan pour képp koo xam ne jur nga pour xeexal Sénégal ñu xool naka la nga tëjee ci kaso bi. Y'en a marre. doole frappe wàññi doole ñuy keneen bu ko defee rek ñu ne xaar ci seen leader yi. dama leen seexlu woon. ak ñoom. suñu doom yi di jaar géej gi du yàlla parce que yàlla may nañu lépp pour que ñun ñu dund ci dund bi gën a yemb donc ces gens yokk sama peuple lii man mënu ma leen bëgg c'est pour ça j'avais cette haine envers les politiciens mais dama ni bii nii ah ngeen baal ma Barthélémy ak président Ousmane ngeen baal ma xam ngeen bu baax li jeunes yi bëgg yéen a koy dégg yéen a ngi koy dégg jiw bi accéléré ci yéen mosuñoo am élite bu xam ni jege nañ jeunesse bi à ce point. des mouvements citoyens qui, des gens comme Yann Amar, des rapports engagés, qui décident de s'afficher avec des, des leaders politiques. Kon xam na que les leaders politiques gis wuti na ak yéen daan gis. combat bi da ngeen ko war a mëne da ngeen war di gisante di waxtaan. Sall mi ngi jéem le tout pour jaxasalan seen biir mi ngi yónni ay nit pour ñu leen. donc yéen su ngeen waxtaanee jël égo yi teg fële jiital Sénégal billahi on a confiance en vous. ça fait xam nañ trajectoire bi ngeen jël xam nañ fu ngeen jógee dañoo sonn dañoo bëgg affaire yi mu changé te li ko mën a changé mooy il faut mu am benn benn leader benn élite boo xamante si ni ce sont des gens qui qui yoo xam ne ils comprennent la jeunesse ils savent à quoi aspire cette jeunesse. te xool nañ politiciens yi fi nekk yépp ce sont des voleurs des corrompus amuñu xam-xam bi delloo nañ Sénégal au a bas niveau donc yéen Babacar. yéen yéen a mën a ak jeunesse bi di leader yóbbu leen fi Sénégal war dem parce que Sénégal fi mu nekk du mooy place ay délinquant la ñu fal ay bandi ak ay fayu pour jeexal sama soutien à Y'en a marre sama soutien à Simon loolu laay tëjee di leen wax Sénégal yëpp na ngeen leen témoigner seen seen seen soutien yëpp parce que fu nekk taxawalee pour Sénégal baal Merci.